la ñu ñëw fii nga xam ne nag moo di centre Njanjaay ba tey euh, ci Njagañaaw ñaari centre yi daanaka sorewul ndax ay simili rek lañ def euh, ngir yegsi ci euh, bërëb bi ñu ngi noonee nag ñoom ñaar ñëpp sol lu weex tàll ngir ñëw wote si lu weex nag buñ ko solee léeg-léeg ñu toon sax ne jàmm la ñu woote. macha allah donc gis nga ay mots yuy ñëw la. Mm. ah yar ak teggin. Mm. jàmm am na solo. donc euh, Omar Gningue bu fekkee yaa ñuy dégg ñu bàyyi la kàddu gi. oui oui oui Issa Thioro euh, jërëjëf kon yegg si nañu ci euh, centre de vote Ndiandiaye président de la république Bassirou Diomaye Faye ànd ak soxnaam ngir rek ñëw voté fii ci Ndiaganiao bureau de vote numéro 2 nag foofu la jëm nii foofu la ñuy dugg kon mu def. Euh, vote bi nga xam ni moom la ñëpp di xaar comme ni ko soxnaam dafay léegi fële ñëw rek présenté wu après mu tànn bulletin wam dem ci isoloir bi choisir après euh, ñëw déposé ko ci urne yi donc euh, mi ngi noonu président de la république di dugg si ci bureau de vote numéro 2 ñu dalal ko waaw kii moom dafa na mooy C'est parti des observateurs, hein, observateurs euh, de, de la CDAO, si je ne m'abuse. Hein. Vous me rectifierez, Issa Tcheregueï. Euh, donc, euh, il est en train de saluer les membres du bureau. Après, euh, voilà, la procédure va se poursuivre. Il va donc euh, euh, donner sa pièce d'identité. Voilà, et puis euh, la procédure de vérification. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, né le 25 3 1980 à Ndiaye. C'est donc euh, à aller choisir ses bulletins et ensuite euh, ça sous enveloppe et euh, se diriger dans l'isoloir pour après venir euh, dans l'urne kon mi ngi noonu njiitu réew mi di jël di tànn ay bulletin om euh, toll na nag ci ñeent fukk ak benn waaye euh, yoon may na ko mu jël rek juróom ak euh, lu topp lu mu néew néew kon juróom waaw mi ngi noonu dem na ci isoloir bi ngir choisir bulletin om bi mu bu ko defee ba pare nag si lay ñëw euh, ci isoloir bi déposer ko jo la CEDEAO c'est ça le droit africain voilà donc j'étais en train de vérifier entre-temps le l'observateur euh, qui a accueilli le président de la République. Euh. Précisez, vous êtes du Cameroun, du Cameroun. Du Cameroun. Oui. De quelle structure? Coordination des experts électoraux africains. Coordination des experts électoraux. Voilà. Voilà, donc euh, c'est bien fait. Euh, le président est en train de, de se diriger dans, vers l'urne. Voilà, mi ngi noonu kon di déposer enveloppe ci urne bi. Voilà, c'est fait. donc euh, li ci topp mooy ñëw euh, signer après dem def loxo bi ci encre indélébile bi. voilà donc euh, bu noppee nag euh, xam ngeen ko day euh, génn ñu xaar ko fële ngir rek taataan kàddu yi nga xam ni war na ko yëkkati war na ko yëkkati kon jagleel ko askan wi gannaaw ba mu voté moom président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye fii ci centre de vote bu Ndiandiaye euh, centre bi nag euh, ñu fàttali ko nit ñaa ngi fi actuellement di euh, def seen opération de vote comme ni mu leen waree jamono ji nag njiitu mi mi ngi waxtaan tuuti rek ak observateur bi nga xamante ni moo teew fii le groupe des observateurs euh, donc internationaux. Donc, ñu ngi actuellement en train de certainement lui rendre compte hein, de la situation. bu ci noppe nag Après, voilà. Ci lay euh, wax ak askan wi ci jamono ji taataan kon euh, presse bi maanaam euh, ñi nga xamante ni ñoo di journalistes yi actuellement ñu ngi en place ngir rek euh, jël kaddu président de la république Bassirou Diomaye fay gannaaw ba mu voté tey ci dimanche 17 novembre ci élection anticipée élection législative yi nga xamante ni li ñu ci jublu ñu fàttali ko mooy tànn député yi ñu war a toogal ñun askan wi ci assemblée nationale njiitu mi kon mi ngi génn. bureau bi ñu ngi koy xaarandi kon léegi léegi rek du yàgg dara ñu tàllal ko micro bi ngir rek mu jël kàddu wax ak askan wi moom président bassiru Diomaye Diakhar fay voilà le dispositif est déjà en place et ok donc euh, ça va se faire d'un moment à l'autre Issa Thioro Gueye Dans un instant donc, euh, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va s'adresser à l'opinion à l'issue du vote ici à Ndiandiaye. Hmm. waaw euh, am na solo. Hmm. Euh, donc dañuy privilégier direct bi. xam naa ne léegi ñu delluwaat foofu. Hmm. nga xamante ne euh, gis nañ euh, chef de l'État ñëw euh, ànd ak soxnam ñu njëkk a voté ci lieu de vote soxnam ñu pare dem fii di lieu de vote président mi ngi noonu ci image mi ngi noonu mhm. déglu chef de l'État Issa Thioro donc monsieur le président de la République après avoir donc voté ici au centre de vote Ndiandiaye quel est le message que vous avez à l'intention de de l'opinion D'abord, euh, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être témoins et depuis quelques minutes acteurs de ce grand jour d'expression démocratique. Comme nous le constatons, le peuple est en train de sortir, d'exercer son droit de se choisir ses représentants à l'Assemblée nationale. Il le fait dans le calme et dans la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise. Voilà pourquoi j'ai invité les acteurs politiques dans la campagne électorale à faire preuve de responsabilité pour battre une campagne apaisée, sachant que le jour venu, le peuple aurait la même posture de grandeur qu'on les connaît et qui fait la fierté de tous les concitoyens, de tous les compatriotes sénégalais, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. La maturité démocratique, c'est aussi des acteurs responsables qui s'affrontent par les idées et par les programmes, qui parlent au peuple dans la sérénité et dans le respect mutuel et qui laisse à ce peuple le droit fondamental qui lui appartient exclusivement de se choisir ses représentants ou ses dirigeants. Pour le reste de la journée, j'invite à nouveau les électeurs, qu'ils soient citoyens simples ou candidats, qu'ils soient tête de liste ou investis, à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement la carte de la paix et à recevoir la volonté populaire qui sera exprimée à travers les urnes par une sérénité et une acceptation qui fait le jeu démocratique. Il y aura toujours des vainqueurs à l'issue de cette élection. y aura aussi des vaincus. Mais en définitive, c'est le peuple sénégalais qui sera gagnant. et nous avons tous l'obligation morale de préserver cette, euh, de préserver cette, euh, cette appréciation et ce jugement que la communauté internationale nous porte et qui est empreinte de respect, en ce sens que nous constituons une exception que nous devons à tout prix perpétuer génération après génération. Euh, yan kàddu nga yëkkati gannaaw ba nga voté di sant la bu baax gannaaw bu ñu mayee ñu fekkee ko tal ko ba matal suñu yéene mooy dem vote ji niñ ko seetloo nag fii ak ci beneen centre bi ma àndoon ak euh, soxna si madame la première dame sénégalais yaa ngi génn ci dal ak ci seen teyeefu bakkan di dem wone seen tànneef ci ñi nga xamante ne ñoom lañu bëgg ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi nii nag sénégalais yàgg nañ ko doxale ndax am na ñu mat gi te yàgg nañu wane na saa yu jote ak nu coow li bari bari bari dinañ dem ci dal ci jàmm dem wote ñibbi ndànk seen kër ci ngoon si ñu joxe résultat bi bët set ku ne demaat ci li nga nekkoon muy si ite loolu moo tax bu ñu doon dugg ci campagne électorale bi ma doon waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñoo nekk ci kuje gi te jiite ay liste électorale wala ñu am fu ñu féete te di ko fësal doon leen woo ñu nawlante mayante cër te tamit xam ne senegal gii ñoo ko moom te liñ ci bëgg a def ñu nekk ci kuje gi wala ci nekk wala ñu nekk ci nguur gi duñ ko mën a matal lu dul ne dañ koy def ci jàmm ak ci dal gannaaw bu ñu yàlla mayee nag ñu am askan gu am dayo gu ñu am ci mat ak ci maturité démocratique xam lu mu bëgg te bés bu jotee mu fësal ko ci jàmm acteur politique yi nag ñoo war a def ñoo war a góorlu ba nekk ci niveau bi askan wi toll loolu def ñuy may bu ñuy dem campagne électorale ku nekk nga dem ci jàmm waxtaan ak askan gi ci jàmm fësal sa programme askan gi déglu ñëpp bu bés bu jotee mu doxal nu mu faral di doxale bés bii tey nag bés bu am solo la ci démocratie sénégalaise ndax fee nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo pour dem te muy yoon du xëccoog ñaawo ñaawoo du xëccoog xiiroo du xëccoog ŋaayoo waaye noonu la war a demee ndax ku ne dafa yëkkati loxo ne damaa bëgg teewal askan wi askan wi nag moom moom baat bi mooy jox ku ko neex foofu liñ fay doxal dafa am solo solo soo xam ne tànneef bii nii buñ ko defee fii juróom at yi di ñëw bu soobee yàlla lépp loo xamante ne moo nar a wàccaat ci askan wi ci ay lu ñuy watte ci sart yu tegu ci ñëpp foofu lañu koy defee li ñuy watoo tamit ñi nga xamante ne fal nañu leen am na juróom-ñetti weer ci gannaaw muy président de la république ak ñu mu àndal foofu lañ koy defee kon assamble nationale bërëb gu am solo la ba buñ fa dee tànn tànneef gi war na tànn doon tànneef goo xamante ne gannaaw déglu programme la gannaaw seetlu ndax ay ndaw la ñoo xamante ne bu ñu leen yónnee du ñu leen mën a woowaat ñu dellu siwaat ñu remplacer leen tànk jama ngi am te tànk ak diir gi ñu leen appal matul kon li may ñaan ñi nga xamante ne ñoo nekk di wote am fu ñu féete que ñu nekk ñoo xamante ne wote rek la dem dem toogaat wala mu nekk ñoo xamante ne fësal nañu fu ñu bokk ndax ay militant lañu wala ñu nekk ñoo ñu jiite ay liste nañu ànd ak dal li des ci bés bi ndax taaru bés bi mu commencé ñu mun ko eggalee noonu duggee nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yàlla may ñu mottale ko ak alhamdulilah rabil alamin loolu nag li koy maye mooy segem processus bi bëriwul coow ci xëccoo ci diggante acteurs yi ndax dañ ci fësal euh, tëddee njaaxaanaay lépp lu ci nit waroon am ci àq jox nañ ko ko ba mu mat ni ma ko diggee woon ne dinañ am ay ay élection yu régulière yu démocratique ak yu transparente matal nañ ko ba fi ñu tollu nii li ci des nag mooy ku nekk respecté sa àqu moroom ba luy fëse ci urne yi ci mbañ gàcce yi ñu xam ne askanu senegal lii la tànn te nuñ ko nuñ koy tànnee noonu nag gannaaw day wax na la peuple est souverain maanaam askan wi moom moom baat bi ku mu ko jox ñu nangul ko ko noonu te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar waaye doxal lii andi jàmm wareef la ci ku nga nekk ci kuje gi wala nga nekk ci ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi ànd ak ñun wala ñu ànd ak ñoo xamante ne ñoo nekk ci liste majorité présidentielle bi li laa bëggoon a fësal ci kaddu di ñaanal sénégalais yëpp ñu am bésub jàmm te yàlla may ñu ñu matal lépp loo xamante ne yéena la ci yéen gu rafet ci bés bi ba nuñ koy defee saa su ne ñu koy bàkkee Afrique te ñu am responsabilité générationnelle tamit perpétuer ko maanaam fësal wéyal ko yàlla may ñu ñu matal ko incha allah rabbi te loolu rek mooy li ñuy sàkku ci ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs lañu ci bës bi muy bésu bés bu mag ci démocratie sénégalaise. jërëjëf jërëjëf jërëjëf monsieur le président <laughs> euh, donc euh, waaw. Euh, ñu bàyyi leen ngeen wéy. ci programme spécial bi nga xamante ni euh, moom ngeen di amal ci ci journée bi dinañ jokkoo ci yeneen euh, yeneen fànn jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, Oumar Gningue Issa Thioro Gueye sans sans surprise